korog nag ñu ngi yemoon ci bayitu ñaar fukki bayit ak benn tey ñu war a jël ñaar fukki bayit beeg ñaareel bi mbokk yi xaside gi nag sëriñ bi da ko tënkee ci wakaan xaqan alayna nasrul mu'minin niñ ko waxee woon ca présentation ba boo xoolee jëloon nañ kon tàmbali bi waaw gi ak kaaf gi ak alif ba ak nuun ba boo wakaana nga mat jëloon nañ xaqan nga ba mat jëloon nañ alayna ba mat jëloon nañ nasru gi ba mat léegi nag mu sëriñ bi tàmbalee almominin jël na alif bi ak làmbi ak miim gi tey mu war a dooree ci waaw gi di sunu ñaar fukkeelu bayit ak ñaar sëriñ bi ne wajjih li ummati rasulillahi alayhi xayru salawatillahi mu ne wajjih yàlla nga jëmale li ummati rasulillahi ci xeetu yonantu yàlla bi alayhi xayru salawatillahi alayhi yàlla na nekk ca moom yonantu boobu xayru salawaatillaahi gën gaa xéewali yàlla yàlla na nekk ci moom gën gaa xéewali yàlla xayru salawaatillaahi gën gaa xéewali yàlla yàlla nekk ci yonantu bi yàlla yàlla nga jëmale ci xeetu yonant bi looy jëmale ci xeetu yonant bi mu ñëw ci ñaar fukkeel bayit beeg ñett bi di la wax lim bëgg yàlla jëmale ko ca xeetu yonant bi sallallahu alayhi wa mu ne madada man matee yaqul kun ni yaa man yu kawwin mu naan lam takuni mu ne madada man tëbbug yàlla sunu borom bi nga xamante ne matee yaqul fu mu fi waxee rek kun nekkal yakun mu nekkal yàlla nga jëmale kon ci xeetu yonent bi sa alayhi wasallam yonent bi fu ko tuddee dañ koy ñaanal yàlla nga jëmale ci xeet yonent bi yonent bi nga xam ne xéewalu gën gi xéewal yàlla na ne ci moom yàlla mi nga xam ne fu mu waxee nekkal rek mu nekk xéewali sunu boroom ya gën a matale ya gën a baax ya gën a mat yàlla nga ko jëmale ci xeet yonent bi sallallahu alayhi mu wax ko yaa man yu kaw winu yow mi nga xam ne yaay nekkal mu naan xéewal lam ni foo xam ne nekkul fa woon waaw yaay def xéewal fu mu nekkut nga def ko fa kon ñaanal na xeet wi jàppalal masarra jàngale la bu saaraat ay mbégte waaye ñaanal leen fii tamit xéewal ndax li lépp comme dañ koo sàkk woon ci moom ak ñaan mu dagaanal leen seen borom ñaan yooyu yàlla nangul ko ko mooy xaside gi ñu de kon ñaar fukki ñetteel bi moom lañ jàng noonu bu ñu xoolee nag araf yi lettre yi wakaan xaqan na leen la nasrul mu'minin bu ñu wàññee lettre xaraf par xaraf ñaar fukki xaraf la ak ñett waaye xàkkan comme dafa am sàdda kon da koy jàppee ñaar fukk ñeent rek su ko defee ñaar ñeent suñ ko wooyee ñetti yoon moo lay jox juróom-ñaar fukk ñaar moo tax juróom-ñaar fukk ñaar boo xoolee wakkaan xakkan gu njëkk gi foofu la jeexee muy jëmmi wakaan xàkkan leen laa nasul mu'minin su ko defee comme na ma leen ko waxee woon ci présentation ba sëriñ bi daal di nag buy noppee foofu rek daal di indi fasta jaaba lahu mu nekk ci juróom-ñaar fukkeel bayit ba ak ñaar Euh, fii nag mooy ñaar fukk ñetteel bi mu tekki ne naajaytukal yawma bi hamdin wa sukuur fil muminina yaa waliyu yaa sakuur mu ne naajaytuka deyaale naa al yawma tey bi hamdin ci cant cantu xol wa sukuur ak cantu làmmañ cantu jëf cant yoo xam ne mu koy jëf ak samay cër fil muminina ci jullit ñi ci way gëm ñi yaa waliyu yow mi nga xam ne yaa méngoo yaa shakur yaay santaakoon bi bu la ñépp juboo jubloo di def li nga li leen digal di la warmaal du yokk dara ci sa li nga am ndax yow yaay santaakoon bi li nga am doy na sëkk te duñ la yokk dara nit ñi mënuñoo yokk dara suñu borom tabaaraka wa kon naa jeytu ko deyaale naa al yow ma tey jii waaw maa ngi waxante maa ngi wax maa ngi dee déenteeg yow yow sama boroom al yow ma tey jii bi xam dañ ci sant wa sukur ak sant jëf fil na ci mbiru jullit yi nag lay deyaalenteeg suñu borom ñu ñëw tawat ma ma defal leen ñaanal leen déyal deyaalenteeg sama borom mu faj seen aajo jooju ñu bëgg te yow yàlla kat yaay seen allié waaye yow tamit yow dara mënuñu la ko yokk bayit bi ñu mujjee tey ci page set wala boog des na ñaari bayit mu ne yaquudu lii kun fa yakunu xaaji minka bila xaqidin wala taxaaj mu ne yaquudu lii yàlla sun borom wammatal na ma yaquudu wammat na lii ñeel ma kun fa yakun kun fa yakun nekkal mu nekk mooy faaxel bi mooy sujet bi mu ne wombatal na ma kun fa yakun am suñ borom dénk na ma wala boog jox na ma kun fa yakun wombatal na ma ko xaaj yi muy faj samay aajo min ka mu bàyyeekoo ci borom bi mu bàyyeekoo ci yow yàlla suñ borom bi laa ci lu dul mbañeel wala du jaagi ne bii maanaam suñ borom jox na ma kun fa ma ci faj sama aajo mu bàyyee bàyyeekoo ci yow sama borom te defoo ko ba noppi comme nit wala boog nga def dara ba noppi te gënalu la def dara ba noppi di ko réccu wala nga def dara ba noppi fekk ñàkk paxe nga di ko def tax nga def ko yooyu amu ci wala def ko ba noppi lu caagi ne mbañeel lu caagi ne tamit jol sante wala ak këccoo moo ca am déedéet lu daraa ca am su borom moo ko neex mu defal ma lii ma defal ma ci faj sama aajo mu bàyyeekoo ci sama borom kon boog wommatal na ma euh, nekkal ma nekk wommatal nañ ma ko no wommatal wommatal na samay aajo nga xam ne suñ borom moo ma ko moom ko dénk mu fajal ma samay aajo kon te loolu def ko nag ngir bañeel du caagi ne tamit euh, xëccoo moo tax mu mu am kon sama boroom dafa xool ba mu neex ko am ci coobare bëgg bu doon nit la ñu ne xool bi sedd na ci ba mu ko koy defal dar bayit bi nga xam ne fii lay wakaan àqan gu njëkk gi di jeexee nag muy nuun xam nga muuminiin eh, nuun gi yaa ko ci nuun gu mujj gi nag ci muuminiin xam ne foofu la muuminiin jeexee nga xam ne wakaan àqan gu njëkk gi fii la jeexee mu ne nafayta iblisa li xayri abada fi shahri za wa kulla lam yaabuda mu ne nafayta dàqal nga ma iblisa iblis li xayri walis ci man abadaa ba faw nag yàlla dàqal na ma iblis mu dàq ba faw ñëwul ci man fi shahri ci weer wi fi shahri za ci weer wi wa kulla man lam ya'buda ak képp koo xam nangu te jaamu yàlla kon ku jaamutu yàlla rek yaa boole sa bopp sëriñ bi waaye sëriñ bi moom nee na yàlla dàqal na ko ku nangu te jaamu yàlla comme ni mu ko dàqalee iblis ba faw ci weer wi te ci weer woow mu nekkoon weeru koor ci la taalifoon woon xasida gi kon mbokk yi ñu yamale foofu kàddu yi incha allah ba beneen ayu bés ñu topp noonu rek yàlla nañu yàlla may ñu jeexal xasida gi jàmm ba naalaat yeneen xasida te lépp ñu daje cee ngërëmu sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu